mbooloo mi na ñëpp ànd ak dal mbooloo mi président Wade mingi nuyu sëriñ bi ci baatu asalaamualeykum ne maa ngi nuyu sëñ Muntaxa xalif général des Mourides ne di sama sëriñ ne dama fee ñëwoon tey nee ngir nemmeeku ne ñëw ngir nemmeeku jumaa jii nga xam ne ñun bokki taaliba yépp ñoo fi ñëw ngir defal ko Serigne Touba. ne bi nu tàmbalee liggéey bi boobu ak léegi léegi mu am ab diir waaye yàggul noonu nag fa tabaarakallaa tey ñu fas yéene ko inauguré ñu àndoon ko Serigne Saliou Mbacké ne ñu nekk ci nag ne amoon na it plan yu bari nee ba Serigne Saliou nee mu tànn ci plan yooyu yëpp benn plan nee ñu yàlla dogal ñun taalibe ñu jublu ci nee man ak samay morom nee ñu jàpp ci liggéey bi nee di ko liggéey nag ba tey yàlla dogal mu sotti nee sëriñ bi jàppoon tey jii fa tabaarakallaaw ñu war a jublu àjjuma ngir inauguration bi ne jumaa ji ne comme niñ ko waxe ne jullit yépp ñoo ko bokk ne du murid yi rek ñoo ko moom de ne waaye nag yàlla dafa dogal dañ koo jagleel maam Bamba ne moom mi nga xam ne moom lañu ñu gëm ne man nag maa ngi gërëm yàlla ne ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali ci laa bokk ne may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa tabaarakalla ba ma fekke mën a gis bis bi nga xam ni moom la ñu war a yun a gërëm Masaalikul Jinaan ne xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na ne ñun taalibe daal ñoo ngi taxaw buñ ci amee dara lu ñu war a jubbanti nga wax ñu ko rek ñu taxaw ci ne ndax kat ñun sa bànneex rek la ñuy ak lu baax lu rafet ne ak lu méngoo ak bëgg-bëgg maam Cheikh mat Bamba ne amul lu rafet ne ba weesu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa weesu maam Cheikh Ahmad Bamba ne moo tax ñun bokki taaliba yi lépp lu ñu def rek xeeb nañ ko ne maa ngi lay wax bisimila ne ndax yow yaa wax ne man maa war a dalal gan ñi ne ya ma ko wax de ne lolo tax tay mbacke ma di la dalal ne di bal dalal sama mbokki taliba yeb ne di dalal mbokki julit yeb ne di len xamal ne ne lañu ci bëggoon ne muy juma ju don juma ju muccu ayib ne nga xamne bu ñuy lim juma yi rafet yi ci aduna bi nee ñu limaale ka Masalikul Jinaan nee sëriñ bi tey nag aw ma daara lu may wax nee xanaa di la gërëm nee di gërëm it ñi nga fi wuutu nee nax ñoom ñëpp dañ maa jàppale woon encouragé nee ngir ma sottal ko ne dafay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñëpp la ne waaye kon ñun waa communauté Mouride ne war nañoo am sag bu day ni Masaalikul Jinaan ne bi ñu defaree loo xam ne ne muy néegu yàlla ne mu mucc ayib nag ne incha allah ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ay nit dinañ jógee ba bitim réew ngir ñëw seetaan si Masaalikul Jinaan ne ndax ay nit ñu ngi jógee bitim réew di seetaan mosquée Assane II ne ak yeneen i juma ne ñun daal ñun tabaarakallaaw ñun askanu murit ñun ñi nga xam ñooy yoon wi ñun ñëpp war nañu am fierté ci Masaalikul Jinaan ne man nak lepp luma defal Serigne Touba ne ak lepp luma defal Touba it xem naa ko ne xem naa ko ne bu nu yàlla dimbalee ba nga noppalu ne dina la nuy ci ne wax la yeneeni xalaat yo xamne ne yaakar naan dina bax ci Touba nee ta dina bax ci yoon wi nee lolou boma ma ci joxe ndigal rek nee ma djublu ci lolou nee yal na yeex ba ma wuy ci sama borom nee man loolu rek la japp ni ab talibé la rek bu wara dox ci yoon wi nee ngir rek ngir bëgg am ngeureuma serigne Bamba nee serigne bi Mbàkke ma ngi lay nuyu mais yow ba ñu xamante yàgg na ne cofeel gi nga xam ne moom nga am ci man ma am ko ci yow ne fa tabaarakallaa dag ma kaa mës di woon ne ba suñu jonni yàllay tey ne xanaa mbàkki li ma bëgg rek mooy nga ñaanal ma ne li may mébét bëgg ko yéene ko ci réew mi yéene ko ci yoon wi ma sottal ko ne ma di la xamal ne ne man taalibe la ne lépp loo soxla suba ci ngoon ne du ma wax ni mën naa lépp de ne waaye am na lu ma mën ne loola ne nga wax ma ko ne bu la am benn ci dara nee ndax borom bi nee suñu borom am na lépp nee te borom bi subhaanahu wa moo wax ni ñaan leen ma ma may leen nee konte man nag ci sa ndigal rek laa nekk nee man sa kàddu rek laay déglu nee wasalaam jërëjëf